Boulaye comme moo lay Boulaye 30 matchs 15 buts il passe des décisives il tey euh, dafa triplé donc euh, def record lu xamante ne euh, club am kenn mos ko def donc en Serie A donc c'est assez intéressant li ñu mel nag moo tax tey jii mercato bi yëngatuwaat na démb rek yëngu concernant Boulaye mais il dafa fait a yëngu mu nekk information bu xamante ne rek la génn comme quoi président Fiorentina qui di Boulaye a def impressionné c'est si match bi la def triplé. mu gis ne c'est un gars assez intéressant mu dem gis président bu bu Salernitana euh, pare pour joxe quinze millions parce que on sait que moom euh, option d'achat la dañ leen dañ leen ko mais option d'achat boo xamante ne c'est douze millions boo ko andee rek yow yaa moom jour bi donc waa Villarreal temps yi nii euh, bu bu bu Salernitana Salernitana bu génnee xaalis bi rek ñoom moom bu laajee bu ñu neexee nag ñu jaay après parce que xam nañ ne Milan moo ngi si xam nañu ay club anglais moo ngi si. donc et que mën nañu ci am sax beneen 30 millions bul xam attaquant dafa jamono bi dafa cher euh, le monde du football doo tur euh, A ak Serie A ni ñu tactique ak ñu mën taxaw donc kooku attaquant dëgg la te comme ni ma ko attaquant lool léegi waa Salernitana nag président tamit joxe na information si même journée bi di xamale ne 12 millions yi moom leer na da ngay joxe nee na kii dafa yóbbu niveau bi dafa dépassé sax fi ñu ko doon xalaat nee na bu ba pare en dehors. ku respectueux la euh, dañ ko respecté si vestiaire bi bëgg na ville bi aussi tamit maanaam bu laajee ville Salernitana gis na si boppam ay coéquipier bëgg nañ ko entraîneur bi maître bu muy bu muy teg neex na Boulaye Dia moom aussi ñu ne Boulaye Dia tamit comportement personnalité ak bii ni mu koy dugalee ak supporter ni ñu ko bëggee Boulaye Dia seen priorité la 12 millions xamante ne option d'achat la donc équipe bi xamante ne Villarreal moom lay xaar dinañ ko jox 12 millions donc boo xoolee Unai moom moom moo ko andi foofu te Ilan Emery dem na fële euh, Aston Villa euh, donc euh, benen entraîneur mo fi nek ni ni xam muy Setiens donc benen benen projet bo nek autour de Villarreal même avec Nicolas Jackson je pense donc loolu motax Fiorentina nak bëgg nañ le joueur on sait que Fiorentina moo gën a nekk équipe bu mag lii Salernitana Salernitana Série B la jóge manam deuxième division Italie mais gis nañ le profil mu mu intéressant motax tax ñu dañ koy téye maintenant xam naa Fiorentina nak ak président bi waa ji jaaxal na ko trop triple bi peut-être que dina andi benn 20 millions bul xam en tout cas bu ñu ne la Milan AC mu ngi koy laaj bu ñu ne la ay club anglais mo ngi ci bu ñu ne la quelques équipes yu France mo ngi ci ça veut dire que actuellement euh, il est très convoité mooy kii di euh, Boulaye Dia en tout cas 15 millions d'euros est-ce que doyna pour que benn Boulaye Dia Salernitana wala est-ce que progression progression la jógee Salernitana dem Fiorentina à voir loolu moom euh, yéen samay internet wala samay followers yéen mako ma wax ci commentaire ñoo leen gisee boobu la xibaar quinze millions le Fiorentina tek mais waa Salernitana pare wu ñu pour joxe wax leen ko ci commentaire